والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki ma ngi len di nuyu ci turu khalifa bi to mudi cheikh mohammedul murtada amar ak ci turu njabot gi yeb di len dalal ci pak bo nga pak l'islam la waye pak bo buntu keri serigne touba waaye pàkk la boo nga xam ne pàkku mag ñi fonkool yi xàlloon lislaam yépp la di leen dalal tey jii ci soixantième édition bu magalu Gàddiyal muy juróom benn fukki at di bisu fàttaliku waaye di bisu cant bisu ñaan bisu sant Maolana Cheikh Ahmadou Bamba ci teraanga yi mu defal mag ñu baax ñi fi nekkoon di liggéey lislaam mu mel ni sëriñ bi ni ma ko daan waxee waxtu nekk bis bi bu jotee boo ko yëgalee kilifa gi fi nekkal sëñ Tuubaa yëgal ko ñi fi nekkal lislam bi yëpp di nga ko yëgal ñi nga xam ne ñoom la yàlla teg loxo ci seen réew mi te ki ci jiitu di son excellence monsieur le président de la république monsieur Macky Sall waaye sëriñ bi bi ma déggee ñu jàng alxuraan dama deltu ginnaaw di la jaalee sa mag ju baax ñi fi nekkoon te wàññeeku fi mu di soxna Xari Amaat ndax ñun ñii ñëpp laataa ñuy dem daara bari na aay yu bari yu ñu mokkal ci alxuraan te ci képaram lañ ko daan mokkalee ndax buñ daan tàggatu ko moom loolu la ñu daan jàngal mu mel ne sëriñ bi bi nga bis bi bi nga ko yëgalee président de la république son excellence Macky Sall instruction yi ci waroon a joxe yépp joxe na ko waaye nag ñu àndoon ak administration bi di ci liggéey liggéey bu mucc ayib ma mën ci jiital le gouverneur de la région de Thiès Amadou Sy man si teg le préfet du département de Tivaouane nga xam ne su ma jàkkaarloo woon ak moom tey dinaa rusa wax ndax waxtu nekk woo naa ko téléphone waaye teg ci sous préfet ak chef de service yëpp teg ci nag ñi nga xam ne ñoo ci kaw le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne ak le ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye waaye sëriñ bi bi nga leen ko yëgalee ñu àndoon ak administration bi di liggéey xam naa man maa ci gënoon a tuuti ñu takkoon ma der gi rek na ma liggéeyal waaye rendre naa compte sa coordonnateur général di Amar Ben Amar lima ma ko wax yépp ci résumé ak fiñ ci tolloon rendre ko compte ci liggéey bi mu ma kon maa ngi ñaan moom bu jëlee kaddu gi mu jëbbalaat la liggéey boobu wax li nga xam ne moom la ci njaboot gi doxe woon waaye nag lu ci bari ñenn ñi lañ doon gis waaye sëriñ bi maa ngi lay seereel ne njaboot gépp ngi ci woon te bu ma waxee njaboot gi waxuma njabootu deret rek waaye njabootu pas-pas sax laa wax ndax ñëpp àndoon ñun ci liggéey li tax ma ñëw fii nag nee daaw dama waroon a ñëw demoon mission. nee na ren bon comme yàlla def na ngi Sénégal. nee na kon ren ma ni yàlla dogal na maa ngi Sénégal. nee na mënuma rate bis bi tey. ngir kóllëre gu ma am ak. ngir Amar. wax bi nag bu wax wu ku jiite délégation ndax daal wax ji du waxi ku jiite délégation ki jiite délégation mu bàyyi ko ci président la république mooy maam Thierno Dieng mi toog. am seede bu ma bëgg a def sama diggante ak Serigne daal dafay am seede bu ma bëgg a def sama diggante ak Serigne Mourtada Amar. te war a jàll ci yeneen liggéey te war a jàll ci yeneeni programme yooyu président dafa war a yónnee te ma war faa dem. te li may wax mënta ñàkk ma seede ko ci li may wax it ñàkk ma seede ko ci njabootam seede ko ci dëkk bi mu juddoo. sëñ Mourtada Amar. nee na Serigne Amar. Amérique bi yëpp nañ ko ngir xam nee na Amérique yëpp di ñeent juróom fukki nation yëpp naw nañ ko ngir xam-xamam. amul toog Amérique. nee amul fenn fooy toog ci États-Unis d'Amérique. tudd turam. tudd aw turam. ñu teg ci xelam mu na ñu teg ci ci xelam mu sell mi. ak jàngaleem ci diine ak. ci diine ak ci Serigne daayira yi dañ koy xëccoo. nee na daayira yi ne ci Amérique yëpp dañuy xëccoo Serigne Mourtada Amar. kër Serigne dañ koy nee na kër Serigne Touba yi ci Amérique yëpp dañ koy xëccoo. kóllëreem yi mu am ak xaritam yooyu foofu ak xaritam ya mu am ci États-Unis yëpp dañ koy xëccoo. ñëpp a ko bëgg ngir ni mu jàppe Serigne Touba. nee na ñëpp a bëgg sëñ Mourtada Amar ngir ni mu jàppe Serigne Touba. su àndeek sëñ Mamor. nee na bu àndeek Serigne Mamor. nee na dañuy ñaan sëñ Mamor ni ko boo demee na nga nu fi bàyyil sëriñ Mourtala mu des fi. ndax mosuñoo ndax ñun kat du ñu ci moom. man nag mu def ma xarit. nee na man nag mu def ma xarit. gis ma sopp ngir yàlla. na gis ma nag sopp ma ngir yàlla. dara ngir yàlla ak jëmmi sëriñ moo ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Touba rek moo tax moom mii mu sopp ma. saa ñëwoon Amérique fekk ma na bu ma saa ñëw sax Amérique fekk ma fa. nee na daawuñu tàggoo guddi du bëccëg. kon xam naa ci moom lu kon am naa lu bare bëri lu ma xam ci moom. ci sellalam. ci sellalam. ci bëgg Serigne Touba moo yey de. ak xiif ci jàngale. ak xiif ci jàngale. diine. loolu moo waral. nee na loolu moo waral nag. mënumaa ñàkk ñëw fii tey ci Gadeyelle. waaye bi ma fi ñëwee. waaye nag bi ma fi ñëwee nag. nee na tey jii laa jëkk a teg sama tànk fii ci Gadeyelle. bi ma fi jubee dama fi gis lu sotteegul. nee bi ma fi jubee nag dama fee gis lu àggagul. muy nee na muy jumaa jii. ma dee léegi ne ko. ah nee nag ma dee ko léegi nag ni ko sama digganteeg yow ni mu mel ci wëllëre ak xarit daal soo ma joxee ndigal. man aaroon man aaroon na ku mëndoo juuf. engagé wu naa pour. pare jumaa nee na daal yéen waa Gàddayel yépp sama digganteeg Serigne Mourtala Amar li koy firndeel mooy jumaa ji moom maa koy àggalee. ci ci kàttanu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nee na loolu rek laa leen doon bëgg a wax. yéen mbokk jullit yi yéen mbokku taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci turu suñu jëwriñ di suñu baay di El Hadji Goumba wax ci turam day dana metti tey dana jafe li tax mooy jotaay bii nga xamante ni ñu ngi fi toog tey jii di jël ci kàddoom di wax moom ci boppam moo fi daan toog di wax ñu koy jottali tey mu am ngànt muy ngàtt loo xamante ne nii aw naqar akuk tiis la sunu baay ñëw na fii ci suñu yaakaaru bopp lu ëpp juróom fukki at wala juróom benn fukki at daan ànd ak ay xaritam ak i bokkam di toog fii tey jii mu ñàkk xaritam boo xamante ne nii bu masaan a toog fii mu toog ci wetam ñu koy wax alaaji abdu as alaaji abdu siise sàmb bu Louga mu wàññeeku bërki démb ci suba bi muy wàññeeku fekk na sunu baay mi ngi jël ay bagaasam di ko dugal ci oto bi booba cinq heures du moo jot pour jëm si gàdd ci lañ ko woowee téléphone ni ko dey sa xarit boobu ñukoy wax alaaji Abdou genn na aduna ci waxtu woowu mu tawam sama nek sama ginaaw di turundom di alaaji Abdou Samb di sama mak niko lu ngeen jappon na ngeen bayyi te si ma and ak Abdou Samb ci waxtu woowu ak Guma jaay di sama mak bi ñu ñëwee mu xamal ni ñu dal xew-xew bi mo fi am waye man duma mëna def dara lu dul dem go yeen ngeen dem yalla kon loolu mooy ñàkk jotaay bii nga xamante ne ni moo tax kenn gisu ko fi tey jii kon wax ci aw turam dina jafe waaye yóbbante woon nañu ay kàddu kàddu yoo xamante ne ni da ko doon wax rekk ci taalibe yi ndax moom day jëwriñ la ci kër gi joo xamante ne ni jàpp naa ni bu fi toogoon tey jii mag ko fi dana jafe waaye nag yàlla moo dogal ab wuutaayam tey ñu toogal ko fii mu yóbbante ñu ay kàddu bu ñu yéwee nañu ko santal mbokk yi santal ko taalibe yi yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci gàddiyel ak ci gox yi ak ci gox goxaan yi nii nañ ko santal daayira yi nga xamante ni ñoo nekk ci diaspora bi li ko dale Amérique jàpp France jàpp Espagne ak Italie suñu bàyyi mi ngi koy jëlee ci sëriñu ci kàddu sëriñ bi di ko jottali mbooloo mi di leen sant di leen xamal ni mbooleem seen takkoog seen liggéey yegsi na fii ci sëriñ bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa maghfiratuhu ñu ngi gërëm suñu borom di julli ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam tey fàttaliku bu baax tey bëggee bu baax tey sant bu baax góor gu mag googu nga xam ni liggéeyam moo leeral fii muy Cheikhul Khadim di suñu maam amoon wóllëre wu rëy ak mbooleem kilifay yi diine yi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi ak ci bitim réew damay wax ni radiyallahu taala anhu cheikhul xadim man de xawma ko waaye mën na maa xam ni ku yàlla dimbali woon la ci ñeewante mboolem xeetu yonent bi ni mu bëggee woon rasululaay noonu la ñeewante mboolem xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa loo yër ci téere bi ñaanalul boppam rek walla njabootam rek mboolem doomu aadama yi lay ñaanal xewul àdduna أخيو لا نظر يلا يلا تاس نجي بركل ما نجي يبنت نيو لكو جارة لتي كيف تقول خلي جنرال لموري سين شيخ دي سمو بولري ما نجي فاتلي كو تجابون بنيو واتي تكر سرين توبا غير ترم كرم مومي مبوب مورفت لما جوخ خالص بري أكسري مصطفى لكرم ci teewaayu maam Mor Mourtada di sama wëllëre sëñ Mourtada xam na ko sama baay sëriñ Abdoulaye Mbacke moom nu boole woon moo ko sëñ Abdoulaye tam sëñ Fallu kóllëre googee di dox ba yàlla dugal ci suñ doomu ndey bii di sëriñ Mourtada di xalifa bi tey sëñ Mourtada ñoo ngi lay nuyu sa bis bii di xalifa général gardien nga nekk Seexu Sëriñ Touba doon na ko say waajur yàlla jox la jikko ju rafet joo xam ni mboolem doomi soxna yi fi teew jóge ci kër yi diini yi yëpp boo woote woon Mali ñëpp fekk la fa ndax sa jikko ju rafet juddu baax na loolu bu rafet waaye jikkoo ko gën yàlla rafetal na sa jikko rafetal na sa xalaat rafetal na sa jëf am nga yëg ci nun lu nu xewle yaa ca gën ñëw teew sa ñaan ak sa teraanga tey doomi soxna ju la def conseil du juum nit ku baax la ñoo ngi lay ñaanal ci turu doomi soxna yi rawatina sëñ Sidi Moxtaar mi ma àndal ak sëriñ ma dikke ak mbokk yi fekk yépp ak ñi nga xam ni bëggoon nañu ñëw te xat-xat jàpp leen ne la wóor ni daal këri diine yi yépp am nga leen ni nga amee kër sëriñ Touba. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi suñu sangu si tedd yi ñu fi fekk ñu ngi leen di ziyaare di jégglu jël kàddu gi ndax tuuti nañ ci waaye dañoo xamul lu ñuy def ndigal ndax sëñ Muntala moo ñu jox ndigal sant naa yàlla nag bi ma toppee ci kilifa gi nga xam ni moo doon wax ak monsieur le ministre conseiller ndax lépp li bëgg na seere ci sëriñ Amar wax nañ ko kon su ma ko waxaatee seen kàddu moo gën a sama gas seen kàddu moo gën a kawe sama bés waaye sëñ bi balaa loolu ñu ngi lay xamal ni sëriñ cheikhuna Mbàkke mu sëñ Saam ca Ndam ñoo waroon a ànd ñëw fii tey yàlla dogal na bi ñu xëyee ba mu waaj yaramam moo xaw a libat tuuti moo ko teree ñëw sëriñ Mara Touré xalifaam moo ko yebal ci yeneen ñaari bis moo tee mu teew tey tey sëriñ Abdou Fall ak sëriñ Dame Lay ak yeneen mbokk yu mel ni sëriñ Bamba Mbuub ñoo ñëpp jëleen nañ décision teew si fii ndax yaakaar naa sëriñ bi bu ma wootee mbokk yi ñew talibé yi ñew sang si ñew wa diaspora bi yépp war nga leena gis waye xat-xati jamono ak bis yu daje te ñepp ñu war fa téw mo waral tay ma téw fi japp naa tam waru mo wona jël kaddu ndax am nañ ñu ko gën matale ñu ma daan andal ñukoy jël kon dama ci yam rek kon lool mo lay wan ni la ñepp ci sa ginnaw lima ci tek nak moy serigne sëriñ man Thierno sal mi wax de ci turu diaspora bi am naa mbégte lool ak sant yàlla ndax dama ñëw ci jataay bi fekk fi dara maa ngi koy ma gestu sëriñ saaliw amar mële toog jox ma loxo muy firnde ju leer nu bokk daayira Touba Zingoña ay at yu bari ñuy dox ba mu jiiteel ko ba mu xëy benn bis ni day dellu ci Sénégal looloo tax mu jóge fa ñu dajawaat fii tey muy lu rafet mu génn ci seen njaboot kon loolu rek li fi nit ñi doon wax rek lay firndeel ni fii lu baax a fi am xam-xam moo fi am ngërëmal Serigne Touba moo fi am ku fi jóge tam foo dem loola nga fay wane te sëñ Saliou Amar Mële loolu la wane fa ñu nekkan ca Touba Zingoña ma amaat chance bu toll ni sëriñ Maam Mor Moutada Mbacke tànn ma depuis 2004 may ànd ak moom ci fépp Europe ba tey ji ñu taxaw may wax mbooloo mi ni loolu su ma ko mënee am xam mbooloo diaspora bi yëpp ànd ak sëriñ bi ba nëgë ni ginnaaw yàlla sëriñ Moutada Amar yaa ma ko dimbalee ci sag woyof ci say conseil yoo xam ne kenn du ko yëg di ma woo ci ruq di ma wax nii nga war a defee nii ngeen war a doxee ba ma mën a ànd ak sëriñ bi fukki at ak juróom kon loolu ñu ngi la koy sante euh, ñi ngi leen di nuyu di leen wax ni ñu ngi jël kàddu ci turu xalif bi di sëriñ Mouhamadou Mourtala Amar di wax ni buñ jëlee kàddu gi nañ ko joyal ay cant jëmale ko ci ñëpp waaye rawatina nag jëmale ci kii nga xam ni mooy njiitu réew mi wala boo euh, sant état bi yépp ndax buñ nee état kenn ko jiite muy président la république waaye ñu fàttali rekk ci ñàgg ñu yàgg xam magal gi ni muy doxee nii kàddu gii may jël de am na ku ko daan jël ci ay jamono yàgg na lool di ko ànd ak sëñ Fàllu ak sëñ Gumba muy sama mag di Mokhtar Amar muy Njaga Baaba tey mi ngi nii toog kon kàddu gi doom la moo ko waroon a jël waaye daf ñu wax ni nañ ko wax ni ko sëñ bi doxale sëñ Mourtala nañ ko jël santal ko euh, état bi bale loolu nag ñu ngi sant suñu doom di sëñ xaadim ni mu ko waxee léegi sëñ xaadim Mourtada ndax xam ngeen comité d'organisation bu màggal Touba euh, màggalu Gade Yelle jubsee daanaka dootuñu am benn yitte benn jot lu dul nu ñuy doxalee ba màggal gi euh, gën a jaar yoon at mu jot mu am yokkute ci wàllu woowu ñu ngi koy sant bu baax moom comité d'organisation bi mu àndal euh, ci yitte ji ñu ko jox waaye ci cawar gu cawarte guñ ko jox ak xalaat yu rafet yoo xam ne ñi ngi koy am di ko indi ci ay coppile coppite ci màggal gi ñu leen sant bu baax Euh, ci biir coppite yi bokk na ci tey jii organiser nañ fi benn conférence bu mag boo xam ne sëñ Tasrif Sougou moo ko jiite boo xam ne nii bu ñu sañoon mu gën a yaatu ba ni ko sañ Abou Amar waxee sànq ci ci conférence bi màggal yi ak gàmmu yi dañ cee waree boole itam ay daje yoo xam ne nii daje xamle la daje la daje yoo xam ne nii ku fi jógee war ngaa am loo xam ne di nga koy yokkoo ci wàllu jaamu yàlla waaye ci wàllu tektal ak digli yi nga xamni mag ñi taxoon barab yi am mom lañ doon digal di ko mbolo mi kon ñu sant bu baax comité scientifique bi euh, di leen jaajeufal di leen wax ni ngeen gën goor ndax ñi ci ëpp ay ndaw lañ kon bu ñu bañee guddal rek euh, xaadim suñu doom xaadim wax na ko délégation officielle bi bi joggé ci président de la république te le ministre professeur Mame Tierno Dieng ko délégation bu yaatu la du ma dellu ci euh, di ko lim ko composé xanaa wax ni rek cant sëñ bi li ko lal ni bi bu ni état dafa yaatu ta état ñépp ko bokk lu ñépp bokk nag loo ci am sécurité bu ñu gendarmerie bu ñu xoolee xam ni sécurité bi doy na éléments yi fi ñëwoon daaw lu ko ëpp moo fi teew ren jii te ñëpp ñi ngi mobiliser te bu ñu sécurité ñi ngi ko doon wax léegi ci conférence bi di wax euh, soufisme vecteur de développement vecteur de paix et de développement euh, exemple de la Mouridia te bu wax paix comme nañ ni jàmm moom sécurité mon lal motax euh, gendarmerie ñom tam bu gu gi jubsee ñu am benn jot taxaw nan sécuriser yoon si gardiel, waye naka la cérémonie officielle bi aussi ak lepp lu ko war te lañuy la veille ba suba ci magal gi inshallah jam rek lañ fiy saytu dox ci sécurité donc euh, sécurité bi waaye sant yeneen service de développement yëpp xëy na moo limee dina yàgg mooy ñu yor ci wàllu ndox mi ndox manquéwul ci dëkk bi courant manquéwul ci dëkk bi euh, réseau yi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu internet ak yooyu xam nañ ne ren am na connexion permanente te euh, couverture bi yaatu na lu jëm ci wàllu santé itam service de service euh, de santé yëpp taxaw nañu mobiliser nañ am nañ poste de santé avancé waye am nañ ay ambulance yo xamni ñi ñi ngi leen prépositionné ba lu jëm ci gox bi lu fi xew inshallah ñëpp gadd yàlla lañ leen yoni yónni te loolu cër la. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci turu Cheikh Mouhamadul muntaha wa xalifatul am li al muridiyya Cheikh Mouhamadul muntaha Cheikh Al bashir ci turam ak ci ay kaddom ak ci ndigalam la ñuy kaddu yi diko tek ci loxol serigne Murtada Amar mu jattulel ko serigne bi kiri fi daje yëpp ak gan ñi fi daje ñëpp bu ko waxé nonu li muy wone rek mooy sëriñ bi xam ne ñi fi ñi fi ñi fi daje ñëpp aw ganam lañ danañ ko gën a leeral waaye sëriñ Mourtala sëriñ Mountakha dafa ñoo waxoon ne bu ñëwee nañ la jot li wax laa wax naa la ne la sëriñ Mountakha ñaari ay bés yëpp fu ñu wéete laaj na ma màggalu Gàddiel kañ la wax naa la itam keroog bi ñu jógee kër sëñ Mourtada jógee ci sëñ Mamor ci biir oto bi biñ jàppaaree rek la ma laaj màggadu gàdd yàlla kañ la xanaa soreetut ndax lañ ma waxoon yàggatut ngir wan la ne mi ngi bàyyi xel ci dëkk bi di bàyyi xel ci yow te démb bi nga xamee ne Serigne Thierno Mbacke mamam mi ngi koy wax ne ko ñu ngi fàttali màggalu gàdd yàlla da ko ne loolu moom mbirum seex a bàyyi ko seex dana la ca war dana ko def tey mu xëy ma di ma yónni ay màggal waxal ma boppam ne ma fii moom naa dàkk waxtu wi ñëw fekk la fi ci biir mbooloo mi seereel mbooloo mi foo wàcc waaye bu am ci xolam ak foo ko àgg te loolu itam keroog bi ñu jógee kër sëñ Mourtada àgg nañ ci biir oto bi ci kóllëre rek seen waajur ya muy sëriñ Moor ak sëriñ Basiru kóllëre googa sëriñ Gumba nettali na ma ci lu bare bari ba tàyyi waaye sëriñ Muntaxa xam na lépp kon sëriñ Muntaxa xam gum xam ne kër gi këram ma moom day buñ nee diw mooy sëriñ Touba dafa am yu bare bari dañ ko koy weesale kenn dootu ko mën a wax waaye buñ doon wax ci ay bokk rek kon dañuy wax ne moom mooy taawu kër gi ndax diggam diggante waajur yi noonu la demee loolu nag xam gum ko xam ak jàpp gum ko jàpp moo taxoon mu ne bu ñëwee nan seereel sa bokk yi fi nekk ne leen am na mbégte mu rëy ci yónnee si fii ci bis bi ci sa wet ngeen ñu xamal ñépp fi ngeen ko àgg ak fi ko dëkk bi àgg ak fi ko bokk gi àgg waaye nee na li ko gën a neex itam nag mun la sant ci liggéey bu réy bi ngay liggéey ci kër si amal Murtada ndax ni ko doon àndeek sëriñ bi mu gis ne ba fi sëriñ bi nekkut itam noonu nga koy àndeek sëriñ Mamor ci da ko ci wéttali di ko ci jàppale di ko ca taxaw te loolu lum yëg la te waxaale nu keroog ci oto bi bi ñu jógee ci kër gi mu ne gis na ne def nga yitt ju mat sëkk ak taxawaay bu mat sëkk jàppale sëñ Mamor te keroog noonu la ko waxee ci sant sëñ Mamor ba wax ko ne ko dama lay kañ ci liggéey bi ni koy sàmmee ak ni nga koy saytoo ak ni nga koy doxale kon sëñ Mountakha dafa gëm ne la ngay defal sëñ Mamor moo nga koy defal loolu mu dool boole ko ci cant yim lay cant yim ne jàpp na la mi ngi dundal kóllëre nga doxoon ci waajur yi te di la xamal ne ña ngi xam ne am ngeen kilifa am ngeen ay bokk am ngeen ay àndandoo te jàppal na leen loolu lépp ngir jëmmi sëriñ Touba ak na waajur yi ànde woon Serigne Gumba bi may wax ne ma sëriñ ba Basirou dafa jaar fii ci penc bi woo Serigne bi mu génn rek mu ne ko yéegal ci oto bi mu dem serigne bi laaju ko fam jëm serigne Basiir wax ko dara ñu dem ba bam yobbu ko sagata ñi sañ ci këru Tuubaa ñu nekk fa ba jotaay ba yàgg ba sëriñ set lu ne serigne bi geet andi wuton ay yere mu laaj ko ne ko da nga andi wuti ay yere mu ne ko ah man numay andi yere yére man da nga duggal ak mu dugg mu ne serigne dafa dugg ci bir genn ay yereem jox ko ne ko kon solal yere solee yére dafa yëkkati garaam ba ci kaw mu takk ko laxasaayu boole ca ànd ak sëriñ Basiiru ca liggéey ba kon kóllëre gu rafet ngir sëriñ Touba foofu rek la mën a yem noonu lañ ko àddee woon sëriñ ba sëriñ Muntaxa nee na mi ngi leen di seereel ne kóllëre gi ko rek la fas yéene ànd ak yéen ne leen ko jàppale ginnaaw bu mu leen defee àndoon ci liggéey bi sëriñ Touba nee na kon mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kon ñu gàttal kàddu yi ginnaaw guddi na ndax sant rek lay def ak ñaan nag ni mu koy waxee waxtu bu nekk mu ne moom ñaan gi muy ñaan ku gën a gàtt mooy day ñaan yàlla na dajeeg tawfeexi Serigne Touba mu ne tawfeexi Serigne Touba ku dajeeg moom sa lépp day yomb sa lépp day yéwén sa lépp day barkeel kon yàlla nañ dajeeg tawfeexi Serigne Touba yàlla nañ fi dajewaat déwén nun ñëpp kenn bañ a manqué te lépp lu luñ fi yëngatu. sëñ Touba nangu ko mu wéew bu dellu ci mag ña dellu si ci réew mi mu jariñoo ko zaahir ak baatin président bëgg na nag lu muy def mu mat te jag looloo tax mu boole ñoo délégation bu mat sëkk délégation man maa ko jiite ci wàllu cabinet boppam Arona Coumba Ndoffène Diouf ministre conseil dégg ngeen li wax ñëw na fi président waaye itam ñëw na fi pour mottali seen wëlër yi ci délégation bi bokk ci wàllu état mun naa ci boole Mamadou Mbengue Guèye

te loolu lañ leen sant te loolu lañ war a def administration bi dañ fee war a nekk pour soxlay nit ñi te li ngeen wax daa mel loolu lañ fi nekk euh, assemblée nationale teew nañu fi ndax député Ibrahima Fall mi ngi fi président groupe parlementaire ay miru ñu ngi di en même temps maire Mérina Dakhar yóbbante na ma fii nee na daa gàllankoor waaye xelam ak xolam a ngi fi ci wàllu conseil économique environnemental aussi defe naa am nañu fi nek ci maire yi gis nañu fi Baye Mass Gueye moy maire Mbayeen defe fi fii ne maire ko mak ci Sénégal bëriwul ñu ko gën a ci fonction bi bari wul gis nañ tam Baye Ngouda 6 moy maire Ngandiouf ci sama délégation bop nga xamni ñoo ñooñu man dong maa leen indi man naa cee lim sama dong Ngandiouf te loolu sañ naa ko lim ndax ngañ tuk sama xamay sama nga xamante moom coow la aw sama xale yi këraale yi mor jaare géey màggal jeng bàyyi musa jeng ñoo ñëpp <coughs> ñëw nañ ci màggal gi ànd ko teew seen man président la délégation boobu la yebal wax la mu fi ci gàddu yàlla wax ci gàddu yàlla dina ma yomb dana ma neex dana ma yomb ndax dina mel ni sa bopp lay wax dina ma neex ndax man dara gënuma neex daf la ma war te wax fii damaa war bala maa wax li président wax nag dañuy àndoon ñëpp sant suñu borom ndax moo nu may fekkee tal ak man daal bi may ñëw fii ci màggal gi sëñ Sidi Mokhtar moom ma ñaanal ma ñëw fii nekku fi ren loolu dogal suñu borom la nangu nan ndax moo ma yar ci ñaar nee na jàngoro ji ci àddina mooy bañ lu suñ borom dogal waaye ni ma car na foo toll lu suñu borom dogal ceew na la neex kon demam boobu moom neex na ko ndax noon na lu bon suñ borom dogal ci moom neex ko waaye sëñ tubaab du fi jóge ku ko doon du fi jóge sëñ Cheikh Bara toogee tey mel nañ sëñ Sidé ngi fi ndax li ci kii wax day na sëkk. yaakaar naa ni sëñ Motala laa ma la laajoon tey danga mën a nuyul waa kër sëñ Touba pare soo gis ci noonu. moo tax ñëw gi njëkk nuyoo sëñ Mountakha Bassirou nga xam si moo fi sëñ Touba tey te sëñ Touba bu ko doonee da ko war a doon ba pare mat ko war a doon gi mooy dem a ba sëti sëñ moo fi mag waaye war doon mën a doon na ko gën a mën na ko doon sëkk ndax ku fi fa sa nekk war moom def na ko sëkk ba mat ko te li ma ci gën a xam mooy li fi féetewoo sëñ sëñ Sidi tax moo war a mën a doon sëñ Touba tey te sëñ Cheikh boo fi teewee. mel na ni sëñ mu taxa teew na fi ndax yow dangaa nekk ci teen ba bàgg fekk la ci waaw foo ma commencé gisee gis naa leen ngeen di ànd te li nga wax fii tey dal na war naa dal xel ñëpp war naa tax tam nit ñi delloo seen yaakaar ci gàdd yàlla ndax sëñ mu taxa ba fi nekk ba léegi itam lu ko war dong la nekk donc ñëw bi ñëw fi yow wax nga lu tax nga ñëw fii loolu mën nañ koo wax ci nuyoo waa kër sëñ Mountakha boobu ci laay dugal waa kër sëñ Touba yi nekk ci baas bi yëpp boole naa leen ci nuyoo sëñ Mountakha bi boole ci itam waa kër sëñ Abbas nga xam ne moo fi borom daaru tudd ci sama rakk sëriñ Bassirou Mbacké soo ko nag di ñëw ci njabootu Ndar Manko gi nga xam ne ñu sant Amar tey yaay seen xalif ñoo ngi lay nuyu boole ci sa njaboot képp say doom sëy sët ak say jarbaat ak soxna yi ñëpp ñu ngi leen nuyu ci biir di nuyu ñu nekk ci baas bi ñëpp ndax dañu ne ab sëriñ ay dongo donc bu nuyoo sëriñ bi itam war a nuyu dongo bi président daf ni ngeen jàppale ko loolu bu ko waxee dafa am lu wolof wax wolof nee na looy wut mu jafe la da demul fu mu am te ngéene la ko looy wut mu jafe la dangaa demul fa ñu fa mu am te ngéene la ko te gàdd yàlla lépp am na fi donc solo si moom la muy def ba ngeen yéene ko lu tax man ne gàdd yàlla lépp am na fi loolu dañ koy tàmbalee ci tey ak démb bu ñu nee tey naari kajoor amul kajoor amul yi naar ay darman ko ngir dar maa ngi ko yéene njëkk dar yonent bi ba ñëpp yaakaar ni sa yonent bi ngeen cosaanoo ba ngeen daree yonent ba ñëw Sénégal wëlbatiku dar Sëñ Tuubaa ba am li ngeen am dar maa amar xëy na leen ci gën a xam waaye sugu ci la gumbala ci la tàndina ci la saadi ci la ture ci la jaañ ci la baabu ci la te ñooñu foo dem Sénégal fekk leen fa wax nañ léegi diaspora bi bu ñu wax diaspora bi mën na ci tudd toute l'Europe tudd ci Amérique foo ci dem fekk fa ay darman te foo dem fu ne yomb nañoo xam ne danañ jàmm seen borom danañ jàng alxuraan di dunde seenu ñàkk li may wax it nag euh, du gudd ginnaaw bu ma nuyoo kilifa yi ma fi fekk ñuy sunuy sëriñ muy waa kër sëriñ Touba xam ne ñun moom la ñu yaakaar tey ak ëllëg damay nuyu sëñ Mourtada Amar ak bokki darmanku yépp léegi laa koy wax ci yoon wi ni ñun ay naar lañu ñun naar lañu ñun ak yéen ñoo ko bokk Amar mooy mëloo suma baay da ko doon wax ca nag wa nga xam ne dañ leen ko doon boole bëgg a xam ku ci gën a ñaw gën a xarañ ci mbirum baatin wala ijaaba loolu xaju fi mais monsieur le ministre maa ngi lay ziyaare bi nga waxee ba pare say wax yóbbaale na su may wax sëñ Mourtala xam na ne président de la république Macky Sall bi mu may yebal fii xamul woon dana nekk daraam déet màggalu 2010 wala 2009 ci tournée bu mu def Louga la ma ni naa ko demal ci wëllëreem sëñ Mourtada Amar Gadd booba tournée lay def ci Louga ma ñëw fii kon ñëw naa fi ñaar walla ñetti at ci opposition mu doog a jot ci pouvoir bi loolu moo waral ma am sas ci màggal gi bis bu amee war naa fee teew pour teewal fi président mais teewal fi suma bopp suma digganteeg sëñ Mourtala ndax ñoo bokk wayjur bokkit li ma wax muy Amar mooy Malo li ma war fii moo ma war jéemul ndax sëñ Ibnu Amar da daan jox suma baay kàddu gi mu koy toj ci jataay boobu maam Thierno mi nag fii muy waxe war na fee wax ndax fu mu xam na tey li wax lu mat a gëm la ndax man bi may faj booba xamuñu woon ñun daañu ak si fem ma koy seet mu may faj di faj suma njaboot ginnaaw bi nu nekkee bokk nit ku la doy nag ci sa wér-gi-yaram doy na la ci lépp kon sëñ Mourtala Buma ma ñëwoon fekkuma fi kenn it dinaa daw agsi barkeelu ci suuf si barkeelu ci barkeb barkeb mag ñi bi nekk fii tey ñaan nga yàgg fi lool ñaan nga yàgg woote bis bi ndax bis bi sunu bisay noo ko bokk man dama cee bokk manoon naa cee bañ a jël kàddu ndax sa kàddu man na sama kàddu kàddu maam Thierno ci bokk gi waxuma sax ci li ñu bokk muy gouvernement bi mën na yóbbaale suma kàddu kon sëñ Cheikh ñi ngi lay yóbbante sunu nuyoo sunu ziar ci sunu sëriñ muy sëñ Muntaxa Mbàkke ñu koy sant bu baax di ko gërëm di ñaan yàlla it mi nga xam ne dara tëwu ko ci barkeb suuf si yàlla na dund dund gu yàgg yàgg yàgg ngir naal yi nga xam ne naal na ko te xam ne ginnaaw magam yi ak waajuram yi liggéey bi mu àndoon ak ñoom yéene naa jéggi loolu yàlla sunu borom bi defal ko ko bismillahi rahmani alhamdulillahi rabbil alamin صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد عبده ورسوله وذا الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جنا ومحسن تيالا جنك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نيجي سنت شيخ عمر بن di feddaliwaat li limu don ci non mu don ko ci mom bu ko defé nak ñu tambalé nuyo bi ci khalifatul am li al muridiya ki nga xamné bonne boo nee salli salaatan bi salaamin yuntaqa ala salli salaatan bi salam min yuntaqa على النبي في الحزب حسب المنتقى كوكو يرد من ناسيون بتي دا خامن بني دون بارتي دا ني واخ نتي بوبو بارتي لا نبوك واي نا اورمال ناني ني تي ريو مي ييب تي كيو ديني سيرني شيخ لولو موتاخ بيغا نيوي ياغي فك سن سليمان دي واخ ci turu kilifa diine yëpp këru diine yëpp te loolu ba sëriñ si lu waxtaan waxee ne bëggatumaa dégg lu dul loolu ci la ñu yàlla dimbalee ba ñëpp d'accord ñu ànd génération bi nu bokkal jamono tey sëñ Aliou Kandji bu jaaree daf ne ku bokk ci génération bi ci këru diine rek tey la fi ñëw loolu yàlla baaxee na ko ba foofu la ñu toll ci biir àdduna bi tey te loolu dara jiituwu ko ci jàmm su ko defee nag bu ñu nuyoo sëriñ Cheikh di nuyu sangam bi mu dendal muy sëriñ Cheikh Baara bu Cheikh abdullah di ku daara ji meen di ku jataay bi meen ci ay kàddoom ak i jëfam ñu koy nuyu bu baax di nuyu soxna Asu Murtada ndax dafa yónnee tiraanga yoo xam ne avant ak su mu ñëw fii jiitu si ne te man xam nga ne war loolu waruma ci ñoom ndax ñoom sama ay man maa leen war a jox ci li ma gëm waaye lu ma nekk rek mu nekk ci di nuyu nag sëriñ maam Thierno Dieng sunu jarbaat la di doomu Kajoor ñëw teewal président de la république ànd ak le préfet ak su préfet ak ni mu limi délégation bi yëpp andi lépp loo xam ne président jox na ko ko teg ko ci loxoom def ko ci liggéey bi ak daje yeeg liggéey yëpp def na ko waaye maam Thierno tiraanga bi mu fi yónnee si démb bi ñuy jàngee kamil yi ñun ñëpp fii lañu ko fekk mu yónnee ko fi avant ñuy julli timis loolu dafa xam ne ci këram la jëm si moo tax mu def sama xarit Moustapha Cissé Lo président Moustapha Cissé Lo dégg ngeen li mu fàttali léegi te loolu yàgg na ndax booba lii amagul nit nag bu fekkente ne ba li gul ci mom yeena diwah ngi doon and di wax di def di diso suli lii mu jóge barki démb ci coono yu métte métte metti awa mu ñoom mu yónnee si ay tiranga fi ma defé ne fofu la yem mu jogat ci guddi gi kon président ci solo ma ngi lay sant bu baax te di la xamal ni la xamee sama digënté yow ba légui musuma gis ci yow ludul ak fonkeel ak wegeel ak bëgg doomu aadama moom loolu laa gis ci moom te loolu laa gëm ci moom ndax ànd nañu nit réew fu ne bokk nañu nekk ci réew yi waaye sama digganteeg moom lu rafet rek la ci def lu rafet rek la ci wax gëm nag bokk gi lool bëgg wala réew lool gëm ànd bu yàgg bi lool loolu ma ngi lay seedeel ni barki démb ba ngay def sa discours ci sel da nga ne buñ joggé fi ñun ñëpp magalu gadd yalla jëm té loolu da naka publicité la boobu kon ma ngi lay sant di la dalal bu baax di nuyu le président de la république di nuyu premier ministre di nuyu ministre de l'intérieur muy ali Ngouille Ndiaye bari na lu mu taxawé lool ak eh, di ko soññee lool ci liggéey bi loolu wax na ma ko moom ci boppam gouverneur wax na ma ko le préfet wax na ma ko sous préfet wax na ma ko waaye maag Thierno Dieng xam na ci lu bare bare bare bare kon ñooñu amee naa leen gërëm ndax it day am loo xam ne ku la ko te ko sa bopp bu la ko war nga ko di jërëjëf jërëjëf nag ku deful dara doo ko dégg doo ko dégg may wax ne am na ko xam ne taxaw na taxawaay boo xam ne ci gàmmu gi monsieur le ministre foog ma wax muy Mamadou Mbène Guèye xam nga service de l'état day dem ba yàgg am yoo xam ne du mën a mattal seen ci liggéey bi waaye ONAS bi mu ñëwul mën a présenté wu Mamadou Mbène Guèye moo jëy ay oto ñëw ñu topp dëkk bi yëpp fenn fu nekk lu fa ONAS waroon def moo ko def te Mawla day bi muy ñëw teraangaam la indi waaye daayira bi jógee ngaay sax Mamadou Mbène Gueye moo leen jox teraanga yu bari luyeel leen sama kër maam ngeen jëm kon Mamadou maa ngi lay sant bu baax ndax loolu noo ko noonu la demee suñu jarbaat nga ku sant Kunta ak ku sant Amar ku ne ak jarbaatam nga ndax benn yow yow ñooy seen jaay. kon loo fi def rek sa bopp ko defal kon loolu nag cantu mbooloo mi yëpp la waaye aroon na Coumba Ndoffène Diouf dafay jóge léegi président Cissé Lo day ma ne waa loo bëgg ma na ko man de samay projet mooy lii ma am ci penc bi ak li ma am ca armée yi ak li ma am ma ne ma lan ne ko jumaa ji dama bëgg a def extension bi yokk ko parce que méngoowul dëkk bi mu ne ma jël naa samay engagement bu doon dama lay jëndal oto dama la ko jox waaye ginnaaw jumaa nga ma sant danaa ko def ko ci kanam mbooloo ñépp ne dinaa def extension jumaa ji incha allah dinaa ko def ba mel li nga bëgg loolu itam fokk ma sant ko te seereel la ko ndax loo xam ne boo ko waxoon président de la république mu def ko bu kenn ñëwee ci njabootam def ko dinaa ko wax ba ngay jël yóbbante boobu wax ko président te xam naa ne yow loolu la nit jëkkee ci gàdd yow mën naa am danañ wax ci yow ci biir lu dul wax kenn waaye yow lu fi nit def yow la ko defal lu fi nit def yow la ko defal ndax fii moom nga am kon teranga yooyu yépp nag mënuma koo tudd di ko wax waaye sama jarbaat Abdou Mbacke Ndaw dafa yéex a ñëw meeru Mbacke mi ngi nii toog su ko defee maa ngi gërëm nag sama waa kër sëñ Moustapha Mbacke Massamba sëñ Abdou Razak yi ñuy toog ànd ak sëñ Yanqooba seen way jur muy sëriñ Moustapha sëñ Mamadou mi jur soxna ummi fii la dëkk moom man dëkk bi lépp la fi kon sëñ Moustapha fii barabama lu fi xew day ñëwal boppam bu munta ñëw rek yebal njabootam ñu ngi nii toog te nit ku fonki bokkam te bëgg bokkam la moom sëñ Moustapha mu koy ñaanal yàlla defal ko wér mu yàgg ci xilaafa kër sëñ Massamba Mbacké di wax nag ni su ma gërëmee ñoom fokk ma gërëm sama maire président Ngoude Cissé taxawaayam rafet na lool waaye ñun ñëpp nag nu dellu li sëriñ Cheikh doon wax ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ndax kilifa bu la wax ni dama gëstu sharia di ko gëstu ba am ca tawfiix di gëstu tasawuf di gëstu tasawuf ba am ca tawfiix ngir bëgg diine ju wér may gëstu sëriñ bi di gëstu taalibe di gëstu taalibe ba am ca tawfeex ngir bëgg taalibe bu wér rek ma taxaw di dox di bi di gëstu ba lépp li gëstu sama diggante sëriñ bi dama ciy am tawfeex ju wóor ba xam am ko ci kon maa ngi leen di xamal ne man de damay dox te du taxaw ku dox ma dox ku doxul ma dox kon koku ku bëgg dox na nga ànd ak moom ci doxé waye réew mi ñu nekk dafa nekk réew moo xam ne mag ñi dañoo miine jaww ji dañ koo miine képp koo xam ne yaa ngi dox ci biir Sénégal te mënoo yëg ne réewum jàmm la xamagoo lu xew ñu ngi fàttaliku ñun bu yàgg ci jamono ji yàgg ñu di ko déglu. nit ñi bi ñu bëggee def xam ne élection droit de citoyen la dañoo am nuñ ko doon message yuñ ci daan joxante ñoom pour doon ci bëgg xam ne ne jàmm moo am si solo ba mu fàttali dëgg daan ñu naan Senghor nu Lamine nu ngi ci Bamba bu sànni jotee ñu sànnil ku nu ku nu neex dellu ci Bamba mooy du xëy du reyante yi dañuy delluwaat suñu taal bi ak suñu liggéey kon réew mi ñu nekk. man de du ma ko yàq te du bëgguma ko koy yàq te du ma déglu ko ko yàq waaye seen Cheikh Bara Lahad kàddu yi nga daan dénkaane lu mat a bàyyi xel delluwaat ci suñu borom ndax dellu ba dellu jeex dellu ci suñu borom moo ci gën tey jii nag sëriñ bi bu mën a doon wax kilifa yi fi ñëw kenn xamul nu mu toll muy kilifa diine muy kilifa àdduna muy kilifa aada waaye loolu yëpp nag jàmm tax nag bu jàmm amul woon yàlla xam na ni duñ fi mën a ñëw te kat jàmm dafa baax ndax leen ñu musiba am nga si benn waaye du yor boutique boo xam ne moomu ko lu tax mu moom ko jàmm amul mu amu fi dem téye ko ba ñu réglé waat situation yi ñu door a seetaan borom jox ko loolu ku fi nekkoon ci jamono naar yi xam nga ci dara xam nga ci dara léeg-léeg nga bëgg xëy ñu ne tey mënoo xëy dem. ndax conso dafa am léeg-léeg nga jox ñu ne kenn mënut a dox à partir de minuit yooyu nit a koy yóbbu boppam nit a koy yóbbu boppam nañ fexe ba loolu bu ñu dal nañu yàlla jàmm am ci réew mi bu ñu élection ba ci suba si kenn ku ne dem liggéey ku gàtt ku ñàkk bu ëllëgee nga wutiwaat loolu mooy mbir mi yàlla na yàlla defal jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa فاستجب رجالي سؤالي أنت الرحيم ملك القدوس لك علي الشكر والتقديس أنت السلام مؤمن مهيمن أدعو بها وإنني أهيمن أنت العزيز متكبرا له تكبره